500 cas vu ce qui s'est passé. 500 candidats xam nga Macky Sall moo koy moo leen di créé. soo mooy Macky Sall c'est pas bon législative yi moom pouvoir bi ñoo créé woon. li bëgg a ñoom ñoo ko créé mais cette fois-ci waaw non mais cette fois-ci. l'inflation de candidats c'est c'est n'importe quoi. mais c'est moom moo ko créé. ah nu mu ko créé. moom d'abord moom moo ko moo ubbi bunt yi. Oh, oh, oh. trois éléments. du tëj bunt bi ku nekk di yoo ko ne parrainage bi baaxul. parrainage bi baaxul déglu ma nañ tëj bunt yi. déglu ma yow mii wax nga ko. man mii wax na ko. mais je le regrette. 2017. wallaay je le regrette. non bu ne le regrette pas. non je le regrette d' ailleurs dañoo war a les conditions de retrait des fiches il faut pas que les gens jouent avec notre démocratie. il faut pas que ñu dugal ci bopp nit ñi que le seul moyen d' ascension politique. c' est c' est c' est c' la politique. léegi da nga man candidat laa dama tirer fiche. tu te cherches des de télévision après finalement nga ne maa soutenir euh, tel ou tel candidat wala boo leen demee deuxième tour des gens qui ne valent rien qui n'ont rien fait ce pays là ñu ne ñoom dañoo dans une majorité présidentielle war a jiite réew mi il faut que ça s'arrête d'accord pour que ça s'arrête da may fal <laughs> Et je vais vous dire comment je vais. Le ah non je vais te dire pourquoi <laughs> soxna si je vais te dire pourquoi. xam nga xam nga une trentaine de listes. 47 listes. y avait 47 mais yow mooy une trentaine yoo xam ne xam naa ne moo leen jàppale. ne leen dem leen. loolu jox leen ñoom ñoom ñoo leen jox xaalis jox leen caution. ne leen loolu moom c'est la vérité. waaw ñooñu xam nga lu ñu ci doon jublu. pour justifier le parrainage le parrainage waaw. ok alors man dama jàpp ne foofu man d'accord naa ne il faut réorganiser la société politique sénégalaise. déjà la loi sur les partis politiques. il faut l'appliquer. wala wala ñu xoolaat ko appliquer ko. ah oui. et loolu ça fait partie c'est mon package de réformes am na ñu ci liggéey déjà et a parti et ça ça va être couplé au financement des parti politiques. de toute façon le truc est prêt hein matérialisation rek lay xaar gars yi nanguwuñu ko matérialiser mais moom la mu dañuy jeexal. jeex non pareegul da ngay yokk sa heure yi parce que man lu ma wax ne waxuma ko. ndax nga ma ba ba jël sama heure yëpp donc léegi. li nga wax bari na de. donc société kii nu mu tuddee ci euh, euh, euh, loolu parrainage yi vraiment soo xoolee mais y a une bourse bourse de parrainage qui se crée c'est pas normal man xam nga j'ai vu ça au Mali. loolu moom ma tiital j'ai vu la démocratie au Mali nu mu doon daanu. comment elle s'est comment elle s'est désagrégée. complètement. ñu ah. nga gis ni muy wàcc di dem ak yooyu ba léegi finalement tu as vu comme.